dañuy woté ndaje mi ak sunu ay euh, responsable au niveau national et au niveau de Dakar euh, di ñaan président Mamadou Racine Sy di président andi liggéey Sénégal ak Racine bi nga xamante bi ñëpp xam limu def ci Sénégal ci investissement Mamadou Racine niñ ko xamé ni mu nekkee capitaine d'industrie jigen ñu alsar gori alsar troisième âge alsar ñëpp manko doon benn ñaan président Mamadou Racine si mu dimbale ñu mu doon candidat élection présidentielle 2024 ñun ñi euh, militant Alsar ñun ñi responsable Alsar bi ñu gisee lépp lu mu def ci Sénégal lépp lim fi def ci mouvement bi ñu ñaan ko ñu ñaan ko moom mu envisager nekk candidat présidentiel 2024. Euh, ñu ngi ci biir Benno Bokk Yaakaar. ay militants disciplinés lañu depuis bi ñu nekkee Benno Bokk Yaakaar kenn mësuñu dégg ñuy xuloo ñuy xiiroo di ŋaayoo waaye am nañu sañ-sañ am nañu fit am nañu droit itam ñaan sunu président Mamadou Racine si gunge na Macky ba fii makisal Sall du nekk candidat gàcc ngaalaama Macky waaye itam ñun itam am nañu sañ-sañ ñaan sunu président mu doon candidat waxuñu nekk dañu bëgg wala président Racine dafa bëgg a présenté wu déedéet ñun jigéenu alsar ñun wa alsar ñoy ñaan Mamadou Racine si président Mamadou Racine pour mu présenté wu ci élection yi. nécessité la demande sociale la comme ni ñu wax rek Mamadou Racine mi ngi ci jàkka yi. Mamadou Racine mi ngi ci hôpitaux yi Mamadou Racine mi ngi ci financement famille Mamadou Racine mi ngi jappalé ñun gis nañ suñu bop ci li Mamadou Racine di def loolu motax ñi diko ñaan pour me présenter parce que gannaaw yàlla nag luy jot jot Racine le secteur privé la bokk mouvement am bi nga xam Vous moom la am bu ñu ni ñoom dañu bëgg mu nekk candidat ñun secteur privé dañ content, parce que si ñun la pour plusieurs raisons te wax naa ko donc nous soutenir maanaam dañuy jàppale même mouvement pour demander convaincre Racine pour mu nekk candidat bu fekkee accepte accepté na ko li si war yëpp daañu ko def te am déjà mon vrai argument la sera très heureux, hein, le secteur privé, de compter parmi eux un candidat. D'autant plus que Racine, c'est le vice-président même de, la, CNES. Et du, CNP plutôt, et a de très bonnes relations avec la CNES, aussi bien qu'avec les syndicats, l'ensemble des, syndicats de travailleurs. C'est la candidature du Sénégal. Du Sénégal, voilà. C'est la candidature du citoyen sénégalais. Voilà.